du divertissement mais également le meilleur du fun Momo ñu invité daal di ñëw dégg ci plateau bi ma bàyyi la nga dalal ko. aja <laughs> suñu euh, invité tay bi moom. Uh-huh. defe am nañu invité bu spécial. am nañu invité bu international aussi uh-huh. ah. parce que ku ne xam na ni Nollywood mooy troisième industrie de cinéma bi gën a mag ci àdduna bi après euh, Hollywood ak Bollywood bu ma juumalee. et que moom mi ngi fay évoluer bu baax a baax te li ñu ci gën a neex bu ñu koy présenté mooy euh, dañu naan que c'est une sénégalaise parce que mi ngi représenté le Sénégal. partout dans le monde ñu ngi lay dalal baax a baax Binta Binta Goudia bi. bokk ak yéen ci euh, plateau bi. micro mhm, oh, anyway you euh, mhm. kontaan naa trop bokk ak plateau with the beautiful ladies. Mhm. and very charismatic gentlemen. kontaan nekk ak yéen temps tamit euh, wax sénégalais may kan. you <laughs> boo doon wax sénégalais yaay kan lan lay doon. Binta Goudiaby de missionnaire. xam nga comme nit ñi li ñu naan. yëkkati ko tuuti ñu gën la dégg. comme nit ñi li ñu naan actrice you know so yes I am an actress uh, mm-hmm. humanitarian mais damay bëgg ñu utiliser always am a missionnaire because is day global day globaliser yëpp daal. Mm-hmm. yeah. Mm-hmm. kooku mooy Binta Goudiaby mooy Binta Goudiaby la missionnaire yaa ngi ci monde boobu noonu depuis combien de temps. ba ma juddoo seen benn ma formé. yaa dafa nekk parcours nga dama ñëwaale moom li ñu naan may yàlla soo lii dafa nekk don ci man. milieu cinématographique you know humanitarian en même showbiz. am yaa en même temps mannequin nga aussi parce que. yaa defoon naa ko def naa en 98. yaa nekkoon Miss Ziguinchor. yee actuellement liggéey naa ak Ambroise liggéey ak ñoom Aziz Samb. Ah. <laughs> mais dafa am lu ñu la gis léegi nga nga def ko ci yére bi nga kii dañu gis. drapeau Sénégal. Mhm. drapeau euh, États-Unis mhm. ak drapeau Gambia. mais mu am lu ci gën a spécial mooy picc yu naaw yu weex te xam nañ ni lii symbole de la paix la boo doon définir lii nii lan lay doon lii. boo ñu ko doon expliqué jege nga kay des na benn. bi ci suuf nii. yes ah ci léegi. décortiquer ñu lii. ok great <laughs> parce que comme que dama nekk Sénégal bi sama yaay Gambien la sama papa mooy sénégalais en même temps ma yàgg US nekk citizen of United States sama jëkkër américain moom mu yóbboon so mhm. may représenté ñetti country Bad Binta. Mhm. damay représenté the universe mooy. continent yi àdduna bi lay représenté mm-hmm. soo sama ñaari doof yi mooy sama symbole of the crown of peace you know damay dox jàmm mm-hmm. nitu jàmm laa tout le temps damay yor sama doof yi parce que damay bàyyi ay picc tout le so bi ci suuf nag mooy the green dragon man maay dragon vert bu Sénégambia. ok yow la quoi. <laughs> <laughs> Euh, man euh, dama koy dama koy gis parfois ci muy interroger wu ci cause euh, nationale bu Sénégal. Mhm. di def yenn ci ay vidéo di dénoncer yenn ci ay injustice yu nga xamante ni ñu ngi ko fi faral di gis. Mhm. est-ce que lan moo la motiver déjà à ce que parce qu'en général artistes yi dañuy détacher un peu du monde de la révolution mais yow ñu gis ne tu es très am sax ñu ñuy wax ni. activiste nga lan moo la poussé askan ngay ngay ngay def yu mel noonu. waaw loolu yëpp comme li ma waxee rek dafa nekk li nga xam ne ko juddaale moo tax ma nekk missionnaire damay bëgg ñu utiliser moo missionnaire missionnaire. ci lépp lay dugg li nga xamante ne lépp mooy yàq rek da ciy dugg pour defar te fu nit ñi duggul rek fa la missionnaire dugg wane fu ñu war a defar ku ko fàtte ku ne ma dugg fa li ngeen moo tax du activiste kese moo tax ma utiliser la mot missionnaire bi ñu tax ci lépp lay yëngatu. yes mais euh, tiito pouvoir bi ni nga leen di faralee di dal ni nga. faralee di. pourtant Macky Sall ak Marième Faye man rek la ñu fan ci boppam man kese la fan parce oh, que man rek la bëgg liggéeyal of course yeah ah because yeah of course parce que xam na lu may wax dëgg la et puis du ma du ma maslaa tamit du ma neex laa te man dëgg dama koy teg pour ñu defar parce que dëkk boo ko bëggee defar il faut que dëgg réalité rek mooy mën a defar dëkk so daf pour ngeen liggéey wala non yeah dina ma contacté parce actuellement sama strength parce que nit ñi dañu xool xale la bëgg nañu xam si soo paafoo dafa strength ku nekk ci ginnaawam kii kan la fan la war a jëm ak fu mu koy yóbbu ak lu mu bëgg a def ci moom soo boo toog la man xam wat si wat doo mën a xam you know damay bëgg nit ñi combine ak sama atmosphère mm-hmm. soo bu ñuy xool jëmm bi kese parce que sama jëmm dina nax ñu bari mais sama atmosphère is very important nit ñi mën cee connect ñi xam yaa Macky la bëgg a liggéeyal ambassadrice et couronne de la paix en Casamance fan liggéey boobu toll mm-hmm. ba tey chaque jour moom laay def ba tey jàmm gi de xelal lu ma nekk ci biir am ñu ne ay olesena yëfi Casamance rek la ñor am sax ñuy dem ba lay tagee entre guillemets des lan la lan la la lay def non ah, le mot I like it parce que jigéen kiy wax dëgg ku ne rebelle nga you know I like daa neem te tamit xoloon nit ñi moo tax ma ne connecté wuñu ak sama atmosphère pourtant Fuuta laa njëkk tabax école yonde seen Kaolack man fépp laa dugg depuis l'an 2000 laa commencé ma missionnaire so nit ñi xam ñu ma but it's always good nga dégg deeply nga xam nit ki mm-hmm. and nga toog xool social media is mais lu ma xam social media mun naa ne ñu bëri xam ñu ko pourtant gis naa ñëpp damay topp ñëpp ah pour xool mais ku laal samay nit ñi rek moo wax am na ñu bëri dama leen di fànte leen Mhm. nit ma pour xam ni que pour défendre mais man I love my people. Mhm. you know dama bëgg sama Sénégal bi mhm. il suffit que ma xam ne kii def na erreur nit ñi bàyyi erreur bu ñu def xamante ne is a human ñu jël di ko yóbbee ci benn côté bi xamante war fa àgg man ay came up to defend te bu ma waxee ne ñëpp ne tekk parce que ay bring the réalité dëgg rek laay dox moo tax ma ne président war na liggéey man because it's all about the Senegalese moo matter not nit jeex buñ ñooy woo de yow non woo naa ko maintes saa yi mu ñëw dem koy woo jarul ñuy ragal sama strength my strength is dañu am esprit dañu am lu ñu moom te loolu dañ ko war a génnee so man I ñu ñëwaatee un peu ci monde cinématographique bi nga xamante ni évolué nga ci yow ban jàngat ngay def ci ñu nit tamit série série yu bees yi nga xamante ni mi ngi am fii nii ci Sénégal well ci monde cinéma foofu comme li ma wax démb wax naa nekk naa télé bi wax naa ci lu bari dafa des lu bari man dama bëgg cinéma bi ñu def ko comme semaine nu ko doon def nu mu ko doon defee. nañu génn dugg ci monde cinéma bi ñu wane carrément ay sénégalais parce que monde bu Sénégal dafa dafa slip dafa quiet ñun bokkuñu fenn showbiz bu Sénégal sa moo nelaw. showbiz hmm. waaw dafa nelaw complètement ñun bokkuñu. so li ñuy def ni parce que first of all boo xoolee euh, fin d'année bi. dañu war a vivre célébrité yaa ngi ci dëkk ñu ngi ne ay star ay star mais ana suñu star yi. Ah ana suñu star yi kan moo ñu mën a représenter niveau inter moo mën a dem tey nekk ci beneen dëkk mu naan mën a. il faut que star célébrité foo dem benn lay ràññee dañu xam kaan ma dëkk bi pañ jox la ay point comme ce genre you man duma star missionnaire la mais mun naa former ay star I know the way you know mm. te maa leen di former you know soo célébrité daf ñuy représenter so et puis du du outside kese mais nañ ko njëkkee fii mm-hmm. nañu bàyyi suñu célébrité yi mm-hmm. nañu bàyyi di leen di bâche dafa am image mu am personage yow yoon di seen soo nit ki bu jógee di liggéey dara nañu bàyyi di jël ki nga xamante ne dafay décorer caractère mm-hmm. tey gis na ok dama jël exemple ñu ngi am suñu président xale la jeune la pourtant am na kiy bindee scénario ci moom soo bu ñu jëlee kenn ne ko yaay yow da nga nuroo ak président Macky Sall yaay tourné yaay tourné Macky yaay présenté Macky kooku bu ci génnee pourquoi ñu war ko euh, étiquette benn affaire ba nga xam ne dafa ñaaw soo loolu is against the law man dama bëgg euh, suñu célébrité ñi am acteur guild yoo xamante dañuy am ñu leen défendre te célébrité yi nañu manko together mhm. ñi am ñeen défendre man I willing to be in that group mhm. parce que star dañ ko war a respecté mhm. star mooy jaay dëkk dëkk bu amul ay célébrité bokkul dëkk bu amul showbiz bokkul showbiz ak industrie mooy jaay dëkk amul leneen politicien mënu jaay dëkk politicien yi ñoo war a daw ci ginnaaw star yi mais pas star daw ci ginnaaw politicien politicien carte ko voté mais célébrité dafay judd moom lañ ne star power suñu star power en tant que star laa bëgg ñi nit ñi xam valeur bi. valoriser fin d'année yi buy am defal ñu leen dara. Hmm. meet with the celebrity dîner for the celebrity meet and greet amuñu ko. et juste fin d'année day ñëw rek ñu tëj ko daal jeex na soo fin d'année gab année baa ngi nii soo lu si ana suñu star yi. te loolu dafa bokk ci luy dundal dëkk. Hmm. of course autorité bu ñëwee ci dëkk bi célébrité lay njëkk ut. Hmm. mais dañu leen teg fi politicien politicien dañoo traumatiser nit ñi ak politique politique. star yi la ñu war ji teg ko doon number one ci kaw. est-ce que Sénégal jàppuñu rek ni waykat yi rek ay star. non waykat star la acteur ak actrice star la waykat yi seen bopp da leen a rey vivant. Mm-hmm. mun ñu jaay kase mun ñu def xaalis ñu ngi struggle. what is going on here ban service moo fi fonctionné tell me. amul. dara da leen sax même série da dem liggéey mais célébrité am na luy dundal célébrité. dafa mel ni politique rek kay dox kon. of course politiciens nekk ci kaw gars c'est normal star ñoo jaay politique. you know Diana <laughs> préconiser pour parce qu'on que toi au moins vous êtes une une actrice internationale est-ce que jot ngaa def ay jéego ci wàllu woowu peut-être pour euh, gis-gis bi mën a change fii ci réew mi. of course euh, ubbi naa sama production Casa Film Casa Film production ba ma tourné sama film ñi ma.